aouzu billahi minal sheytaani rajim euh, bisimilahi rahmaani rahim euh, ñu sant yàlla bu baax a baax a baax bi mu ñu mayee fekkeek tal di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan jotaay bi yàlla na ko yàlla gërëm lépp luñ ci yaakaar rek yàlla nañu ko suñu borom defal di nuyu bu baax a baax tey euh, ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu wayjur bu góor di Serigne Babacar Mboup di ko masaw bu baax a baax ndax heure bi démb heure démb ci guddi la jóge Diourbel direction de l'emploi ak association FIS jaral ko lu ne Pape Modou Fall di doomam di léppam man may doomam ñun ñëpp ñuy doomam mu jaboote ñu démb ay 23 heures la ñëw ne ma mënumaa ñàkk teewee di di gërëm bu baax le ministre Dame Diop ndax mooy kilifa Pape Modou Fall di freeram am di léppam parce que ni papa Ousmane waxee rek. reconnaissance dafa am solo yàlla dafa def ma nekkoon bitim réew def ay at daan def formation sécurité garde corps rapproché mais dañu ne tukki jom la mais ñibbi si fulla la aw ma loolu Sénégal bi ma ñëwee yàgg ba bëgg làmm nag parce que dañ ne man Fass laa juddoo màggee parcelle ba pare doomu Bawol làmm ne ci man nekk promoteur de lute tëgg naa combat dakaar ak ci région yi mais ma dem ba am lu ma saytu mooy 10 000 licenciés at bu ne ñiy bëre du mat 200. ñi si des ñëpp dañu gunge mbër bi rek làmb am bayre boo xam ne mooy suñu sport national te mbër bi entraîné am doole. bu fekkee ni bëriwul liggéeyul bu amul encadrement rek mën na jàddu beneen yoon. ma ne nag man touche boobu noonu ci laay jéem a góorlu credo bi di un lutteur un métier ci ndimbalu suñu borom jamono googu Alioune Sarr moo nekk CNG ma waxtaan ceeg moom ànd ceg waa association FILS mu rafet lu ko keroog CNG bureau bi ñëpp la Alioune Sarr woo mu ñoom Manga 2 Ñambe Diop ñëpp cer Ka mais dafa ni ñoom amuñu luñ ci teg parce que ñoom ñoo ko waroon def tey buñ ko defulee ma nekk jeune taxawal lu mel ni àndi ceeg ay kilifa mënuñu lu dul gunge ma ci ñu rafetlu ko ma dagg licence promoteur ba ma ca jógee ba am ci ndigalu jur seeti sama sëriñ muy sëñ Abdou Karim moom sëñ Fallou àndi ceeg délégation bu am solo waxtaan ci ak moom mu ne ma promoteur yëpp dañ fi ñëw ma leen di ñaanal waaye yow li la fi indi muy euh, un lutteur un métier dafa nekk loo xam ni man dama ko honoré parce que est-ce que xam nga sëñ Bamba yow initiative bii nga xalaat maanaam yàlla nga bëgg liggéeyal jàppale benn mbër pour mu am formation am xëy mën a jariñ waa këram yëpp kooku man am nga ci sama ndigal moom moo njëkk a jël un million def ci kon nag Père Ousmane bu ñu xalaatee war a dajaloo pour ànd ceeg la ministre Dame Diop ak Pape Modou Fall war ko ci delloo njukkal muy doomu sëñ Fallou boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy bàyyi xel ak àdduna bi kooku bu ñu ko defee rek reconnaissance mu am solo la. bi ma ci waxtaaneek moom ma seet si si ma ma seet si fi le ministre Dame Diop ci appui wu Pape Modou Fall mi ma jot ko wax ak moom parce que moom laata muy nekk directeur c'est un sociale social Pape Modou Fall nit ku baax la du li mu toog moo tax ma koy wax de dafa am ñaari qualité yoo xam ni ma man dama ko bëgg ci moom xam nga wax ju néew la Pape Modou Fall waxam bëriwul jëfam moo ëpp waxam te loolu la yàlla gërëm Pape Modou Fall nit la koo xam ni macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat engagement bu mu jël lu mu wax ci kàttanu yàlla daf koy def te loolu moo jafe ci réew mi kon nag nañ ko bàyyi xel nañ ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan bu gudd ak wér bi ma waxtaanee ak le ministre Dame Diop moom it muy ku baax ku yaru ku gore nee ko ministre man de dama jóge bitim réew def naa fa fukki at waaye lii moom a tax a jóg laata may àggale la ma ni man sa initiative man salué naa ko parce que bu la neexoon toog bitim réew ndax xale yi ñi ngi jël gaal gi ñi ngi bëgg tukki yow nga ni da bëgg ñëw pour jàppale sa réew. man ko ministère loolu laa bëgg damaa bëgg bépp mbër bu nekk Sénégal rek am formation am xëy moom moo engagé wu la 14 décembre 2019 moom moo ma njëkk invité à Diourbel def ci contribution bu am solo woo direction am yëpp nee ma nee nañ ma nañ ma fekk Diourbel mu ne ma à partir d'aujourd'hui jàppal ni maa ngi sa ginnaaw boobu ba léegi la mu wax c'est moom mooy ministre moom rek boo xam ni boobu ba léegi li mu wax ak ñun mi ngi koy def mi ngi ñu gunge jox instruction direction am yëpp tey jii nii. formé nañu 300 lutteurs tey yéen ñëpp tey ay ay professionnels ngeen Matar mii moo leen formé kii ku ne xam na ne garde corps rapproché bu ne Sénégal rek moo la formé ba ñuy jege président sànq rek am na ku ma koy wax ne président fu mu ko gisee kanaan Matar Diop mu ne ko mi ngi nii. kon nag boo leen amee chance ci ndimbalu ministre Dame Diop formation boo xam boo leen demoon di ko fay ñun xam nañ li ñuy fay 600000 francs CFA Dame Diop jox instruction ay direction am ne leen defal leen leen ko gratuitement. ndax ci ndawu réew mi lañ bokk ñu defal leen ko kon nañ ko santee Dame Diop ci kàttanu yàlla tey nag Pape Modou Fall président Macky Sall dénk ko direction de l'emploi emploi mooy xëy ñu nekk ci lu am solo mooy xëyu ndaw yi bu yàggul dara président Macky Sall ak ci ñeewantalam dafa génn ci télé bi ne jeunesse bi je vous ai compris mooy dinaa leen jàppale yéen ñëpp ku ci nekk ñu jéem a xool nu leen jàppalee pour ngeen xëy la mu waxoon aussi def na ko parce que bi mu ci waxtaaneek waa direction de l'emploi ba Modou boobu ba léegi mi ngi koy doxal léegi nag ñu formé leen ba pare xam-xam bi mi ngi fi mais day laaj na ngeen am xëy ci la ma woo waxtaan ak man association FILS mooy président bi mais tax toog toftal ci leneen muy arène bi sécurité parce que li tax ma toftal ko ci bu leen formé da ngeen dañ leen war a insérer mu woo ma ne ma sëñ Bamba dinaa am ñu ma ci ñu ma ci ànd ak yow signé go contrat jëlagum leen mais deux mille 2022 damay yokk nañu góor góorgóorlu ma yokk ndax loolu la ma président sant bëggatuñu benn mbër chômé formé nañu 300 lutteurs tey mu am 20 ak lu ci topp yu fi toog ñu signé contrat kon nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may fekkeek tal amiin yàlla nañu yàlla yàlla na ci yàlla def def tawféex promotion bi nag li tax mu am solo mbéygee Tigre de Fass lañ ko tuddee mm-hmm. Mbaye Gueye nekkoon kóllëre Pape Modou Fall Pape Modou Fall fekk na fu ne Mbaye Gueye bi mu feebaree Pape Modou Fall moom a njëkk yónnee xaalis doomu Mbaye Gueye yi ngi nii toog mi ngi nii toog jógal mi ngi toog moo tax man sànq sax xaw naa tur rangoñ mi ngi nii toog doomu Mbaye Gueye bokk ci promotion bii jàpp leen seen promotion bii du lu yomb de Mbaye Gueye bi ma toogee ak moom dafa ma ne sëñ Bamba bokk naa ci association yu bëri mais sa bos moomu ci gën a neex à son avec sa santé sama papa nekkoon meilleur copain am fu ne fekk nañu fa mu ne parce que yow man bu ma mënoon dellu xale te ku ne xam ne ni Mbaye Gueye c'est le tigre de Fass moo yóbbu làmb fu fu ko kenn yóbbul mu ne waaye formation bii ak insertion bii mooy affaire bi man su ma mënoon delluwaat xale def formation dama koy def ndax rëccu naa lu ma defule formation tey moom loolu gunge nañu ci ba yàlla jël ko yàlla na ko yàlla yërëm mu jël Moustapha Gueye rakkam maa liggéey ñëpp ne leen tey avant muy la wàcc liggéey ànd leen ak bàmba keroog bi ñuy def cérémonie remise diplôme bi kenn desu fa rakku Mbaye Gueye rakkam yëpp a ñëw toog kon nag muy dëgg kon nag gars li ci des rek mooy ñu góorgóorlu parce que ay champion rek ñoo fi teew sëñ moodu ay champion ñoo fi teew Quench mi ngi nii dimanche bi passé làmb ju rëy la bëre Nékorél mi ngi nii Kona Yawou Dial Moustapha Gueye numéro 2 Mbaytin ay champion rek ñoo fi daje mais dañoo dem Papa Sow 2 ba xam ni actuellement nii lii moo am solo après carrière u làmb contexte Covid bi jaar na fi ñu toog ay at liggéeyuñu bëreewuñu léegi nag ñu xam ne lii dëgg la xëyu ndaw yi kon nag nañu ñaanal Pape Modou Fall yàlla bàyyi ko fi nañ ko ñaanal président Macky Sall gën ko dooleel parce que bu ko président dooleel mbër yeeg étudiant yéeg cultivateur yeeg artisan yeeg ñëpp danañ ci jariñu man loolu wér na ma man kon nag nañ ko ñaanal mook waa direction am yàlla yokk seen ay ndombal tànk yàlla yokk Dame Diop parce que Dame Diop defal nañu teranga kàddu yi loolu la woon ma ko fi yamale di leen wax ni le 26 décembre bi per Ousmane tudd ñun ñëpp dinañ dajaloo seeti ji sëñ Abdou Karim moom sëñ Fallou kan lañ ciy àndal nag kan lañ ko jagleel Dame Diop ak Pape Modou Fall mi nga xam ni tey gunge nañ ñu formé ñu ba li am faw ñu toog sëñ Abdou Karim toog presse bi ñëpp toog ñu seere ko ba président Macky Sall yëg ko loolu moo ñu tax a jóg jërëjëf gars yi